secrétaire général di nuyu monsieur le ministre monsieur le ministre des finances monsieur le ministre du travail euh, les collaborateurs des ministres euh, monsieur le ministre de l'économie ginnaaw bi la nuyoo maa ngi nuyu say collaborateurs di nuyu madame la l'administratrice générale du FONGIP Néné Fatoumata Tall di nuyu votre directeur de cabinet El Hadj Sarr di nuyu également sama frère monsieur le maire Abdou Ndiaye mu def liggéey bu am solo di nuyu le DG du capital humain monsieur le ministre vous êtes ingénieur vous êtes un produit de l'école des ponts et chaussées vous êtes ingénieur en ponts et chaussées c'est l'une des plus grandes écoles de la France donc pou dire simplement que là où vous êtes vous êtes c'est votre place le président Macky Sall vous a fait confiance il vous a confié d'abord le FONGIP il vous a confié l'AIBD. Il vous a confié le ministre des Transports aériens. Et aujourd'hui, il vous renouvelle votre, sa confiance en vous confiant un secteur important, un département crucial. Nous vous félicitons, nous vous encourageons et cela témoigne de vos compétences. Monsieur le ministre, le recensement général de la population, je pense que c'est important pour un pays. dafay tax ñu xam nu dayoo askan wi toll dafay tax ñu xam ni réew wi toll loolu moo ñuy may ñu mën a teg li ñuy woyee les politiques publiques yoo xam ne dina adapté wu pour askan bi nga xam ne mooy askanu Sénégal dina adapté wu aux besoins de la population dina adapté wu aux du pays loolu kon am na solo monsieur le ministre également ma gis ngeen am ñaari programme muy bi ñu ooyee PAAICE ak ETER muy le programme d'appui à l'accélération